salaamaaleykum mbokk yi xarit yi soppe yéen ñi saxoo baaxoo dañuy topp suñu ay émission suñu yaakaar seen mbokk Mari Diop ñu ci mbek mu rëy wax dëgg yàlla dellu si waat di wéyal li nga xam ne moom la ñu tàmbale woon si kàttanu yàlla suñu borom muy jukki si li nga xamante ni moom moo xewoon si jamono yontu yàlla Moussa xew-xew yoo xam ne yàlla dafa waxoon yontu yàlla Moussa mu bind ko ngir ñun ñu mën cee jot te si suñu jukki ñaar fukk ak juróom ñaar gisoon nañu dëgg dëgg ni yàlla sàkkloo woon waa ban israel jaare ci muusa ab kër gi nga xam ne fa lay dëkk maanaam kërug yàlla gi njëkk ci kaw suuf foofu la woon yàlla joxoon ndigal muusa yi ak tegtali mën nañ wax jox ko plan wan ko model boo xam ne da ko defee noonu te si suñu jukki euh, ñaar fukk ak juróom benn itamit dinañu wéyal si loolu kon di leen wax jërë ngeen jëf si li ngeen baaxoo di ñu topp di ñu teewlu di wax ni seeni laaj itamit dinañu am mbég lool di si indi ay tontu dinañ wax mën ngeen ñu bind te dinañ leen indil ay tontu si seeni laaj indi leen ay leeral waaye ñu wéyal tey suñu jukki ñaar fukk ak juróom benn muy lu jëm si e, màggalukaay boobu mu teg si ni si e, saar Euh, ñaar fukk ak juróom-benn aaya benn mu ni xaymab màggalukaay ba nag defaree ko fukki sori rabal yu ëcc ba sew mu ànd ak wëñ gu baxaam laal violet ak wëñ gu xewar ak gu xonq cur te ñawaale sa natali sërub guddaayu sor ba nekk na doon ñaar fukki xasab ak juróom ñett yaatuwaay ba di ñeenti xasab te sor yépp ay tolo yii juróomi sor day taqaloo ca guddaay ba juróomi sor ya sa des taqaloo noonu ñawlul ay takku yu baxaam laal yolet sa catal sor ba mujj sa benn takkalante ba te ñaw ko mu noonu itamit sa catal sor ba jeexal takkalante ba ca des ñawlul itamit juróom fukki takku sa catal benn sor ba ak juróom fukki takku sa catal sor ba jeexal tàkkalan ba ca des te takku ya yemoo yàllay wax ba tey mu ni Muusa su ko defee nga defarlu juróom fukki takku yu wurus yu takk ñu mën a jokkale sor yi ba màggalukaay bi doon benn bu loolu weesoo rablul ay sori kawari bëy muy kiiraay ca kaw màggalukaay ba na soree di fukk ak benn guddaayu sor bu nekk di fanweeri xasab yaatuwaay ba di ñeenti xasab te fukki sor yeeg benn yéppay tolloo dayo mu tegaat si ne takkaleel yii juróomi sor juróom benn sor yi des it nonu te lemat juróom benelu sorba ca kanam xayma sakal jurom fuki fukki takku sa catal sor ba mujj ca takalan teba. ba ak jurom fukki takku sa catal sor ba jeexal takalante ba sa dess sakal jurom fukki lonku yu xanjar te lonku ya sa takku ya daldi dajaloo ñaari taqalante ya muy benn xayma mu tegaas ne la ëpp nag sa sori xayma ba mooy genn wàllu sor ba say topp na lang sa gannaaw màggalukaay ba waaye benn xasab ba ëpp wet gu nekk sa guddaay ci sori xayma ba na lang sa ñaari weti màggalukaay ba yiir ko mu tegaat ne tegal ca kaw xayma ba kiiraayu deri kuy yu ñu wulli xonqal ko te tegaat sa kawam kiiraayu deru pipi sàkkalal màggalukaay bi ay làcc sëng samp ko na làcc wu nekk am ñaari kemu yu lëkkale galan yu ndaw te nga def lu ci màggalukaay ba yépp noonu taxawaayu làcc wu nekk di fukki xasab yaatuwaay ba di xasab ak genn wàllu ci wàllu làcc màggalukaay ba sësaaleel ñaar fukki làcc mu féete bëj saalum ak ñeent fukki tegukaay xaalis yuy ronu kéemu ñaar fukki làcc ya ñaari tegukaay ay ron làcc wa jiitu ngir ñaari kemu ya muy àndal ñaari tegu topp ca ronu wépp làcc wu ca topp ngir ñaari kemu ya muy àndal mu tegaat ne gannaaw màggalukaay ba féete sowu sàkkal ko juróom benni làcc teg sa ñaari làcc ngir koñi màggalukaay ba ca gannaaw noonu nañu àndandoo di benn sa suuf te lëkkaloo ca kaw ca benn lam képp noonu lañuy bindoo ñoom ñaar ñooy doon ñaari koñ yi noonu muy juróom ñetti laaj ak seeni teguwaayi xaalis muy fukki tegu ak juróom benn ñaari tegu ronu laaj wu jiitu ñaari tegu topp ca ronu wépp laaj wu ca topp gannaaw loolu sàkkalal ay galani bantu seng juróomi galan yuy ànd ak laaj ya ca gëna wetu màggalukaay ba ak juróomi galan ngir laaj ci wet ga ca des ak juróomi galan ngir wet ga ca gannaaw màggalukaay ba te féete soowu galanu digg ba sa digg laaj ya lay nekk dale ko cat ba cat xoolal laaj ya wurus te saxal sàkkal wu ci nekk ay lami wurus yuy teye galan ya te xoobee galan yi it wurus su ko defee nga taxawal màggalukaay bi ni ñu la ko wane ca kaw tund wa sàkkal rido bu ñuy ràbbee weñ baxaam laal yolet ak wëñ gu xewar ak gu xonq cur ak wëñ gu ëccu ba sew ñu ñawaale ca nataali sërub ba tey de yàllaay wax mu ni ko te wekk ko sa ñetti jéeni sëng yu ñu xoobee wurus lu ca nekk ànd ak wéeku waayi wurus te tege ca kaw ñetti tegu xaalis mu tegaat ci ne wéewal rideau ba sa ron lonk ya su ko defee gaal ga aluway seede ya sa dencee tege foofa ca gannaaw rido ba rido ba xaajale leen bërëb bu sell ba ak bërëb bu sell ba sell tegal kibéeru saraxu njotlaay ga ca kaw gaal ga aluway seede se dence sa biir bërëb bu sell ba sell te tàbbal jasa biti na kanam rido ba teg tegukaayu làmp ba sa wet ga féete bëj saalum sa màggalukaay ba mu jàkkaarloog taabal ja féete bëj gànnaar sàkkalal buntu xayma ba kiiraay lañuy ñuy weñ gu baxaam laal yolet ak wëñ gu xewar ak gu xonq cur ak wëñ gu ëccu ba sew muy liggéeyu ràbb bu rafet noonu nga sàkkal kiiraay la janook jéeni sëng xob bu ñu bu ci nekk wurus seeni wekkuwaay di wurus te moolal lu ci nekk juróomi tegu xànjar kon mbokk yi jukki baa ngi noonu li ci liñ ci gën a mën a seetlu rekk mooy yàlla dafay wax Muusa ak ay detaay yu leer nañu te wax ko naka defee nu mu méngoo ak nañu ko ko wane nañ ko ko wane kon daf ko jox ay précision yu leer nañu kon suñu jukki tey mu ngi noonu ba tey su ngeen ko bàyyee xel du ñàkk ne ku ci nekk si yéen dina am lu ko ci ump wala lu mu ci bëgg leerlu waaye di wax rek ni noppi nañu ngir indi ay tontu ci seeni laaj kon seeni laaj mën ngeen ñu ko yónnee ci suñu numéro yi ngeen di gis ci whatsapp te dinañ leen ci indil ay tontu di leen wax jërë ngeen jëf am nañu mbég mu rëy ci li ngeen baaxoo ak saxoo di ñu topp di ñaan yàlla sàmm leen yàlla sàmm ñu yàlla defal leen jàmm yàlla defal ñu dàmm def jàllu jàmm ju yaa te sax ci suñu réew di leen jox dig daje lu yàggul dara ci beneen jukki su suñu ay émission suñu yaakaar jërë ngeen jëf nañu yàlla defal jàmm